askan wi ak xaajaliko dina am ci seen biir yéenekaay gi di enquête xëy di xibaar naan ñu gouvernement bu Sénégal am nañu benn semaine ngir nag jël li nga xam ne moo tukkee ci dialogue national bi yóbbu ko assemblée nationale procédure d'urgence maanaam dañu koy baral fast track la ñu koy def maanaam dañu koy gaawal yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na samedi ji nga xam ne moom la génn Macky Sall ba ñu koy jox résultat yi nee événement yi nga ne moo a am ci réew mi loole yëfu terroriste la waaye nag ne duñu mu àndaloon ci dialogue bi lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ci recommandation yoo xam ne jébbal nañ ko Macky Sall Abdourahmane Diouf nee na bu fi kenn wax ab dialogue ndax li nga xam ne moom la ñu doon def amul lenn loo xam ne lu ci dëggu la amul lenn lu ci sincère Abdourahmane Diouf bu awalee daan nay wax ne li mu gis du ab dialogue waaye ay xarit yoo xam ne ñoo doon toog doon waxtaan maanaam ci kenn ku nekk lan moo la arrangé maanaam arrangement moo am ci diggante ay xarit noonu la Abdourahmane Diouf jàppee dialogue bi yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar nañu dialogue bi nga xam ne doon nañu ko amale am na ñeenti poñ yoo xam ne ba léegi ak déggoo amu ca journal bi nee na ba ca njëkka mooy lu jëm ci koo xam ne ku neutre lay doon ku farewul fenn organiser li nga xam ne mooy élection yi loolee déggoo amu ca waaye tamit ku nekk njiitum réewa doo nekk njiitu parti loole tamit ab déggoo amu ca lu soxal wàllum ñetteelu candidature ak déggoo amu sa ak lu soxal ñi nga xam ne ay détenu politique la ña yéen kaay gi de la peuple quotidien xëy dañu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji parewul ngir nag jóge ci bopp di APR moom Macky Sall nee na événement yi nga xam ne moo fi amoon loolee mbirum terroriste la waaye ko lijjanti journal bi nee na lu soxal wàllum dialogue national bi ak la nga xam ne moo fa tukkee ni ay déggoo danañu ko yóbbu assemblée nationale ngir nag ñu daal di koy valider ci biir yéen kaay gi di Rewmi Quotidien ci xëlim ak Assane Sambo nee na Macky Sall bu bëggee nag éliminer Ousmane Sonko ba pare samp ndëndama dina nekk loo xam ne lu compliqué la te nag dina bëri askanu Sénégal ñoo xam ne maanaam ñu ci ànd ñu bari nag li ñu njortu mooy Macky Sall dafa bëgg a dem yóbbaale Ousmane Sonko journal bi de la Tribune nee na njiitu réew mi di président nga xam ne mooy candidature Tribune jàpp El Hadji Malick mi nga xam ne mooy yor communication ci journal bi di Rewmi Quotidien nee na ñoom en tout desal amul lenn lu ñu laam-laamee ne Ousmane Sonko dina bokk ci élection présidentielle 2024 journal bi di Le Quotidien yor yor moom nag nee na dialogue bi déggoo yi nga xam ne moo jot a am dal ay déggoo la yoo xam ne la waral ak la ko mooy fexe ba écarter Ousmane Sonko yéen kaay gi ñu xëy fekk fa ay dilla ay paa yoo xam ne ñoo toog ay profitara paa yoo xam ne ay complice lañ la paa yoo xam ne mënu luñ lenn réew mi ñoo demoon doon dil ak Macky Sall Bougane Gueye Dany nee na France ñooy jàppale Macky Sall ci tooxi doona yëg giraawaali yi nga xam ne moom la nekkee ci réew mi waaye nag Macky Sall na ko leer ne tëbaski gi moo nekk tëbaski gu mujj goo xam ne ci la nekk njiitu réewum Sénégal te senegal yi jamono ji pare nañu ngir jàmmarloo ak nervim yi nga xam ne ay raykat lañu Bougane Gueye Dany ci journal bi nee na Macky Sall taskatu yaakaar la yéen kay gi du l'observateur nee na coalition Yewwi Askan Wi leader yi dañoo demoon démb ca kër Ousmane Sonko ngir nag daal di koy libéré ngir dindi barrière bi waaye nag gars yi dañu leen a dóor ay grenade ba ñoom ñëpp ñu daal di tasaaroo waaye nag journal nee na li ñu ci nemmeeku mooy askan wi génnuñu journal bi de le peuple xëy duñu xibaar naan ñu leader coalition yeeyu askan wi ay ragal la ñu démb dañu doon jéem a dindi bi nga xam ne moom la ñu barrière Ousmane Sonko waaye nag dañu leen faa toroxal bañ na totto journal bi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu leader coalition yeeyu askan wi démb demoon nañu cité kër góor gi dañu leen a gazé ay grenade lacrymogène la ñu leen duura am na ñeenti député yoo xam ne teg nañu leen loxo yéen kaay gi di Source A nee na Déthié Fall Cheikh Tidiane Dièye Moustapha Guirassy Maïmouna Bousso Cheikh Tidiane Youma ñii ñëpp démb rungum loo woon nañu doon dem cité kër góor gi waaye dañu leen a gazé bi li mu ci nemmeeku mooy fiasco total ndax gars yi la ñu bëggoon amuñu ko te askan wi fekk si wuñu leen ci yéen kaay gi de La Tribune nee na am na lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñett yi ci taskatu xabaar yu nekk ci réew mi ne ñoom bind nañu signé nañu nee nañu ànd ñu benn yoon ci ñetteelu mandat ko ma ngi ci biir journal bi yéen kaay gi di Direct ca xën mu njëkk mu ñu fekk fa Amadou Ba premier ministre bi muy jàjji di ñaax ñi nga xam ne ñooy élèves yi war a am bac ma ngi ko xamle woon ci cérémonie synthèse philosophie bi nga xam ne professeur Songe moo ko doon animé moom Amadou Ba premier ministre bi nee na ñi nga xam ne ñoo taal université yi bëgguñu leen waaye tamit ñi taal université yi bëgguñu réew mi Amadou Ba loolee la wax élèves yi nga xam ne ñoo war a def bac nee na leen na leen leer ne yéen a ñu war a donnu ëllëg yéen a war na leen leer na ñooñee seeni noonu la Amadou ñoo ngi leen di ñaanal ngeen réussir de las ak l'info xëy duñu xibaar naan ñu programme bi jëm ci cent mille logements yi jamono ji ay jéego yu rëy moo ci am journal bi nee na ci week-end bi Mame Boye Diao mi nga xam ne mooy directeur général bu caisse de dépôt et consignation daat nay réceptionné lu toll ci téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ci ay villa ca Mbambilor am lu toll ci juróomi parcelle viabilisé directeur bu CDC nee na CDC jamono ji taxawaaya mooy fas yéene jàppale état bu ci programme bi nga xam ne teg na ko jëm ci cent mille yombal askan wi lu jëm ci wàllum dëkkuwaay yéen kaay gi délibération mu doy waar moo xam ne moo xew ci diwaanu Kër Mbay Fall nee na dafa am benn boo xam ne maanaam moo doon violé ñaari jarbaatam benn jarbaat bi fukki at la am beneen jarbaat bi fukki at ak ñett la am policier boobee nag Malang Sané la tudd commissariat bu moo ko teg loxo waaye moo Malang Sané moome nag jabaram moo ko bet ndax jabaram bi ñu ko laajee nee na daf koo bett mu jël loxom daal di yëkkati sipp benn jarbaatam bi jël loxom dugal ko ci suufam beneen jarbaat bi bi ñ ko laajee nee na sama tonton bi violé na ma ay yooni yoona beneen jarbaat bi moom tim bi ñu ko waxee nee na yàgg